interview sans pour autant parler de l'actualité bi nga Sénégal parce que tant yi le dégg au niveau des toiles xam nga euh, ay affaires donc on a vu des mouvements de soutien par rapport à yow est ce que mën nga ñu si ça vous dérange pas si si si si si série d'actualités série série euh, Moi par rapport ak euh, li nga bëggoon dem affaire le voyage est-ce que vous nga bien def ben résumé si ça ça vous dérange pas ñu wax si actualité bobu quoi parce que on a vu beaucoup de mouvements de soutien par rapport si si mouvement hip non mën avec plaisir avec plaisir quoi parce que lolu aussi beaucoup na ci lima ma ma neex ci carrière moy euh, le retour positif que j'ai eu venant des Sénégalais leur soutien leur indignation leur euh, solidarité envers l'injustice bi ma dund quoi tek fitna buma ma gaay bëgg a final par rapport ak samay prise de position par rapport ak sama engagement par rapport ak sama fang daaj man solo ma kagul quoi damay def limay def wax limay wax ben intérêt la amuy Sénégal à part Sénégal am mu intérêt donc Sénégal yi fay fay nañ mako bu mat sëkk buñu ñu que ni dañ ma dundou injustice té li tax ñu dund ma injustice xam nañ lu tax ñoom tooguñu di ma seetaan quoi te loolu sama m'a rendu vraiment heureux ma xam que ni sama peuple mi ngi ressentir sama engagement ak sama jaayante ak ñoom quoi parce que lu bëri lu may xañ sama bopp léeg-léeg dañ may proposer xaalis ci ay mbir ma bañ ko ndax principe ndax bëgg-bëgg ndax am jaayante bu may jaayante euh, te loolu noonu. bu ma ko defoon ba àgg sama peuple di ma seetaan day xaw a compliqué si après mais li gën a motivant li gën a encourageant mooy j'ai eu un retour de mon peuple les gars ils m'ont soutenu je leur fais un big up les gens que j'ai pas j'ai pas pu répondre te loolu metti na ma sama xol yàlla xam na que ni mënuma répondre ñëpp mais am naa yéene bi quoi nit ki jël benn deux secondes am bind kii la on est avec toi wala kii la on est de tout cœur avec toi wala kii la force à toi ñooñu mënuma len fay suma dama leni tontu ñom si sax parfois je me sens tellement coupable que nit bobu nonu faté ay problème ne serait-ce que une seconde il a pensé à moi et il m'a envoyé un message ça m'a beaucoup touché donc je profite pour euh, faire un gros big up à tous ces gens là à tous ces sénégalais qui m'ont soutenu qui m'ont envoyé des messages de soutien de solidarité et tout ça donc voilà c'était juste une injustice bo dundunako et que euh, et que voilà il n'y avait pas de avait pas de raison pour une tentative d'intimidation ou une tentative de punition wala je sais pas comment l'appeler dañu bëgg artistes yi ci you know di dox kenn du wax li nga war a wax. sa dëkk ay position wala ngay dénoncer mu jëm ci France CFA France Afrique mu jëm ci régime bi fi nekk mu jëm si corruption bi fi nekk mu jëm si affaire yu demee noonu bu fekkee tu prends trop position pour défendre sa peuple après dañuy bëgg a damm say tànk pour wan yeneen artistes yi bu ngeen noppi li dal ni def moo leen di dal comprendre nga léegi nag foofu la jaayante bi nekk. soit da ngay plié wu ci sen ay menaces dal di koy lembam rongo tok stop say intérêt soit nga foncer ci li nga nek xamni sa gëm-gëm la askan motax nga koy def nga foncer ci man option bobu la jël lepp lo xamni musna ko wax wala musna ci taxaw wala musna ci dem duma ci mësa delu ginaaw ginnaaw mu ngi nek deug duma ci delu ginaaw luma ci si góobe ko yalla rek mo mën si man dara muy sama lu baax muy sama ak lu mënta don mindeef mënul ci man papa ndjay yalla rek mënal dara mo la ragal kenn la bëgg satisfaire son weesoo moi, c'est mon peuple c'est mon peuple si ma satisfaction moi, je peux me sentir bien après